coowal Aïssatou Diop Fall Babacar Fall Barthélémy Diaz tax na nag ñu bari di waxtaane waa TFM Barthélémy Diaz Youssou Ndour ak kàddu yi nga xam ne Barthélémy jot na kaa jokkalante ak Papa Ngagne Ndiaye ca Ndiaye ci émission Fram di tuumal li nga xam ne rek moom moo di TFM ci ñàkk mandoom di parparloo waaye itam ñàkk traité ay information ci ni mu ware ci lu tënku ci éthique ak déontologie tax na xeex ba journaliste TFM ñoo ko mujjee xeex looloo ci dugal Aïssatou Diop Fall mi nga xam ne àdduna ci tey di wax ne Babacar Fall da koo tooñ xeex boo xam ne rek kenn mën na ko ñaara ko ko dàqale te mënoon na koo xaar mu ñëw ñu sot soto ki nga xam ne moom moo di Barthélemy Diaz jën ko immeuble wan ko ne ko ñu di ñoo fi nekk ñu am fu fulla fay de waaye tam ñu respecté seen bopp ndax Youssou Ndour mi nga xam ne moo leen di fay sax mënu leen pour di leen wax li ngeen di def ak di leen dicté ay mbir yu ñuy wax ndax bu ñu xoolee moom ci kàddoom gi muy waxee Youssou Ndour sax tey bu ta sañoon Aïssatou Diop Fall déposé lettre de démission wala famille Ndour leen gépp ndax la muy wax arrangé u leen waaye nee na du leen ko defal ñuy woote ak sabar ba tax bu ñu xoolee yu Ndour bi fi taxawalee fekkee ma ci boole kenn mësu ko rek daal di waxal loo xam ne àdduwul wala ñu koy defal ay mbir yoo xam ne rek dëppoowul ak euh, seenub liggéey mu tekkee ne bu ñu xoolee plateau télé bu ci mel ni Sen TV Bougane Gueye bu ne sax ñu dal di koy def li nga xam ne moom moo di plateau waxtaani ko waaye loolu mësul am ci ki nga xam ne moom moo di Youssou Ndour kon tey bu Barthélemy Dias demee bay sosal Youssou Ndour rek dafa daal di ñàkk xam boppam ak teg ko ci ay sos xam na ne la muy waxal Youssou Ndour dara amu ci euh, bu àddoo wax rek ñoom dañ ko tontu ndaxte li nga xam ne moom moo di game bi game bandi lañ koy def duñu bàyyee di kenn koo xam ne rek dafay salteel seen tur ci réew mi di euh, Sénégal